commencé nañ ko mot na une semaine ñi nee nañu ñu toog boor bi nee nañu takk suuf amul li tax amul mooy sëy boo xam ne ay jullit yu dëggute wóor ñoo ko fekkee takk ka mu am témoin suñu borom loolu la sopp macha allah bu nu takkee rek takk la waa boor bi nee nañu ñoom lan moo waral nit di takk suuf di làqatu kon bu defee loolu faiblesse la bu defee loolu ragal la bu defee loolu ainsi de suite ragal ak yemuy jur yëpp nee nañu looloo waral nit ne takku suuf la waaye liñ ciy njëkk jàpp mooy ca njalbeen ba amul soo ko yéegalulee ci kaw ba ñëpp yëg ko dañ la takk takk suuf ne am na soxna soo xam ne ma nga nekk à l'extérieur daf nu woo ne ñu kilifa bu mag moo ñëw ca dëkk ba takk ko ba mu ko takkee la ko gëj a gis te la waroon ci kilifa bi yëpp mu ngi ko doon def yeneen ak yeneen macha allah ñuy ñaan yàlla yàlla may ko borom kër gu baax ne moom dafa mel ni jóge na ci euh, léeg-léeg nag euh, euh, Malick mhm. bëgguma ko wax lenn jigéen ndax sopp jigéen man mi toog fii dëgg la waaye dañuy dañuy am yoo xam ne dañ ciy dugal tuuti suñu bopp dëgg la ndax mbir bu leerul ca commencement ba leerul waxuma ki d'accord mhm. ne moom d'accord na ñu takk ko takk suuf mhm. waaye bu weesee loolu ka nga xam ne bëggul ko ko takk takk suuf kon ca façon bañ lay takkee war nga bàyyi xel ne kii lan la nar. bul bëgg rek ne na ma takk. bëgguloo takk suuf lijjanti ko teel teel ak moom. soo ko bëggee yaa ci libre kenn du la ko tere. dëgg la mooy xalaatu awa. Mhm. macha allah soxna Eva. naa ma ubbeel la benn waxu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa ne. Mm. ad-dunya mataaun adduna yóbbal la. Mm. ñu ne ko waaw mu ne wa xayru mataa'iha al-mar'atu saaliha yóbbal bi gën ci àddina nag mooy jigéen ju baax xam nga kan mooy jigéen ju baax jigéen ju xam boppam wax naa la ne la jigéen na xam fa mu nekkoon démb ak bërki démb fa ko lislaam jële ak fi mu ko indi dana tax yenn yi bu ci bëggee dugg loolu lay bàyyi xel dootul boppam lislaam dafa am fu mu jëlee jigéen mhm. dafa fekkoon ñu defee ko ñu nu neen ñu koy defee mhm. mu récupéré ko mhm. dugal ko ci nekk sang ko ba mu set jox ko mël fa muur ko ba kanamam di feeñ. Mhm. mu ne kii balaa cee kenn jotati. Mhm. dina am noo def. loolu bul nangu ku la ko ku ko këll këllee ku ko foowee. Mhm. problème bi du góor ñi góor ñi seen nafsu la ñuy topp sama genre gi. problème bi du góor ñi de jigéen ñi la parce que lay tax takk suuf am jigéen ki la du ku góor ki ku góor ki bëgg-bëggam lay wax. waaw waaw koy moo tax jigéen ñi dañoo war a bàyyi xel ci seen bopp. nit ku ñëw bëgg la takk. comme comme ni ñu koy waxee jaarale ko ci suuf kii am na lu mu nar seetal la mu nar lan la la mu nar nag mën naa baax mën naa bon bu mu ci mën a doon baaxul déggoo ma de la mu nar mën naa baax mën naa bon bu mu ci mën a doon baax ñaar yëpp moom lay concerné ñaar mi làqatu moom xanaa maa mën maa mën a dégg ni ok kon dégg nga ma waaw beneen bi mooy il faut ñu leeral lan mooy takk ak takk suuf xam nga nit ñi dañuy def la euh, dañuy def ay amalgame ci ñaari affaire wax ni am na ñu jàppee takk suuf mooy takk boo xam ne ni nit gi daa dem rek jaar ci suuf dem takk ak nu ñu ko mën a takkee baax na déedéet. wax naa la fii démb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne. laa nikaaxa illa bi waliyin wa sadaqin wa shahiday adlin. Hmm. nee na takk mënul am sëy mënul am lu dul fa ñett yi dañoo daje. ñett ñi nag amul génnewu ci janq bi génnewu ci jeeg bi. déedéet génnewu ci jànq bi génnewu ci jeeg bi génnewu ci meer bi. Hmm. ñëpp a ngi ci biir képp ku ñuy takk la wax. laa nikaaxa sëy du am mukk mukk ñu ne ko lan mu ne illaa bi wali yu lu ne dafa am kilifteef. est am na ñoo xam ne ñàkk kilifteef yi lañuy tuddee takk suuf du dee loolu du takk suuf ak caay-caay la. Hmm. yéen a ngi ca la leen neex waaye sëy amu fa. Hmm. wa sadaqin ak can taxuñoo jóg. wa shaahiday adil ak ay seede léegi nag seede yii. bii jóge ci ko jigéen ki bii jóge ci ku góor gi fa la problème bi nekk léegi loolu la ñuy tuddee takk suuf ndax yow mii takk da ngay ñëw jël alaaji Malick muy sa complice nga ne ko ah yaay sama seede na mais mbir mi bu mu siiw aha ah, alaaji Malick bu teelee nangu mbir mi bu mu siiw alaaji Malick ca la bokk. ca bu ñuy duma kële dañ koy duma waale subhanallah complice la ci loolu mooy coow li foofu la takk suuf amee mais takk moom ak bu mu mën a ne takkal jànq takkal jeeg takkal maire mu ngoog ko mën a takk na am 105 ans na am kilifteef nañ ko maye nit dañ lay maye munoo maye sa bopp tey léeg nga dégg na ko ba pare yàlla civilisé dafa mu def nit moomul boppam. wallaahi alazim Sëñ Babacar Si radiyallahu anhu daan na ko wax daan na wax ne man Babacar de su ma demee ba gisatuma kenn muy sama kilifa danaa dem ba ci àll ba xool benn garab gu taaru ma wéeru ci kawam ne ko yaay sama kilifa su may dem tàgg ko su ma ñëwee ne ko ñëw naa. xam nga lu mu bëgg a wax nit du génn ci kilifteef. rawatina kilifa te am na ci kilifa yu yaakaar ne waruñu am kilifa de. kilifa day am kilifa boo demee ba amoo kilifa nga jël alxuraan mu nekk sa kilifa. par force daf lay. waaw ah, waaw parce que sëñ Hadi Touré suñu sëriñ bu baax ba ca Fass Touré daan na wax ne boo bëggee waxtaan ak yàlla boo bëggee di wax ak yàlla del julli boo bëggee yàlla di wax ak yow deel jàng alxuraan képp ko ubbi alxuraan yàlla ngi wax ak yow ak koo mën a doon. alxuraan amul settee ci yonent bi ci suuf te lii ñuy waxtaanee muy mbirum sëy di wàllu suuf mu nga ci biir nañ na sëy ta ñàkk tiif yàlla nee na ci alquran boo demee ca suratu nisaa yi saar bi mu tuddee jigéen ñi la wax saar bi nga xam ne jigéen ñi la ko jagleel dafa ne fankeexuhunna takk leen soxna yi bi izni ahlihinna ci seen ndigali kilifa lii dafa ne fàng toolam jaay na ku ne lu defaan kenn du ko jeex jërëjëf Dieng kontaan nanu euh, benn waaw Euh, benn pour lan takku suuf ah li wër xale naan <laughs> li tax méchant li tax takku suuf. Ah. pour lan mooy. Ah. Euh, dafa nekk dañu nekk si benn société boo xam ne xam nga oustaz may rafetlu ay kàddoom trop dafa ne. Mhm. lislaam dafa am fu mu jëlee jigéen. Mhm. indi ko jox ko cëram yëpp. Mhm. mais au Sénégal doxalewuñu loolu. li islam wax dëgg dëgg dëgg. doxalewuñu ko Sénégal parce que société bi dañ si am responsabilité et je m'explique. maanaam jigéen ñi ñoo ko. ñoo ko doxalee non société bi. ñoo am responsabilité lu tax mooy société bi ñoo tegul jigéen fenn. au Sénégal da nga bëggoon société bi gën a ah, denc jigéen dama bëggoon li l'islam wax fi mu leen arrangé fa la ñuy xëcc teg. li nga xam ne ñoom seen naflaayu bakken moo leen arrangé moo fi ëpp ñu teg. du wax naa la ca njëlbeen seen cocktail daf maa neex. waaw léegi lu tax ma wax loolu mooy. lii ma lii ma gis moom. <laughs> lu tax ma wax loolu mooy. takku suuf dafa nekk loo xam ne je crois que suñu société bi rek la am dañu dem ba Sénégal sëy ñàkk valeur lu tax ma ne sëy ñàkk valeur war nañu toog ku nekk nga xoolaat sa bopp di ñaan yàlla ku nekk yan na yàlla sa parent di lay aar wallahi amin xam lu tax ma ne sa parent di lay aar man koo waa ma am ñaari doom yàlla may ma ñaari bant mm-hmm. new ma xaw ma lan mooy am ëllëg de Mhm. mais dinaa leen aar ba ñuy am quatre cent cinquante ans mais si les parents démissionnent su mhm. fekkee parent yi bàyyi nañu mhm. bàyyi seen doom bu jigéen muy demee nu ko neex bàyyi seen doom bu góor muy demee nu ko neex mooy indi genre wax yi mooy indi ay genre takk suuf ah. bu ñu demee ba imam y des imams qui font ça qui sont au courant hmm. mais dañuy qui font takku suuf takku suuf qui accompagnent ah bon ah imam yoo xam ne dañuy dem mu leer leen ne takku suuf la parce que ils on été graissés avec de l'argent ñu dem ànd takk imam Eva. benn jooba ngi. boo ñëwee si koñ. Hmm, waaw mu am imam. Hmm. bu njëkk imam xam nañu dëkk si gox ba yëpp. man Benoît Diop ma ñëw ne ko imam kat. Hmm. dama soxla soxna. dina mën a li ma war a njëkk a laaj. moom imam war na def enquête de moralité. jokkook samay waajur xam ndax samay waajur ils sont au courant maa ngi takk na war a jokkook waajuru jigéen ji xam ñoom tamit ndax ñu ngi dem takk mais tu ne peux nga ni ci condition yi la bokk ci condition yi sëy la bokk waaw mais tu ne peux pas être un imam nit jógee fële waaw imam ñun de dañu bëggoon ñëw ñaan si kii affaire yooyu yow imam nga toog defoo benn enquête de moralité nga jóg dem takk boobu bu dee takk suuf tu es responsable en tant que ñu ne ñu nekkee responsable ah mais bul ne imam jusqu'au bout ma di dama lay yokkal rek nga eggali. Mhm. jusqu'au bout imam bu demee ba ci biir ba nga xam ne ni lijjanti na kii waaja a takk ndax ay parawam yëpp mhm. yëg nañ ko. bu demee bay waaja a na tamit xool ndaw si. ndax mhm. am na ñaari ndax am na boroom kër. wala déet waaw loolu mu ci sëy léegi benn benn waaj benn waajoob pour lan jigéen ñi bëgg xëy rek. ne ñun daal d'accord nañu ak benn waajoob neel euh, neel euh, oustaz Pape Malick kontaan ñu ba mu dellu see tey alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah. léegi léegi léegi Eva boo tëralee loolu yëpp. Mm-hmm. boo gisee takku siif mm-hmm. takku suuf. Mm-hmm. man je suis féministe ah, dama faral jigéen ñi. Ah, waaw waaw feeñ na ci waxtaan wi. parce que jigéen. <laughs> yow mi xam nga ne ñàkkoo leen sopp. parce que jigéen. <laughs> Ah. Uh-huh. bu ñëw toog. Uh-huh. nga am sa personnalité. ñu yar la fi ñu la war a yaree. sa papa ak sa yaay uuf la ni ñu la war a uufee di lay accompagner. góor warul am fit ñëw taxaw ne la. dama la bëgg a takk suuf nga ko koy may sax wala di koy reetaan wala di koy siiñ bañ góor waroo ko may lool bu fekkee jigéen bu am personnalité nga bu fekkee jigéen bu am personnalité nga la nga mm-hmm. nekk fi nga war a nekkee mm-hmm. mais boo gisee loolu yëpp mm-hmm. société bi moo wàññi jigéen xam naka la wàññee jigéen parce que yanaa ki prêche ça jigéen waroo liggéey jigéen war da nga war a toog si kër gi euh, sëyal sa jëkkër defal li sa jëkkër ma ne je dis non xam nga tax je dis non mm. parce que ki nga xam ne moo la ameel sa ndékki ameel la sa lépp muy waru garam mu war ko def mhm. bés boo demee ba amatoo munatoo yow nga toog wéeru si moom rek mhm. lu ko neex lay def te su boobaa société bi ñoo fay toog di la yar seen affaire bi nga xam ne je ne peux sax entendre ñël mu ñël def na ko bàyyi ko mu muñal pourquoi ñun Sénégal imam ñu jox priorité yi ñu jox góor yëpp mhm. muy priorité yu neex góor ngay gis mu ñëw biir këram indi fa coroom jigéen bi bu demee classe ñu ne ko muñal <laughs> ay waay muñal yow lii am na fi gis nañ ko. est Sénégal rek gisee loolu. Mhm. Mhm. pourquoi la société sénégalaise. Mhm. du punir. du du góor bi nga xam ne dafa def loolu. takk suuf. doomu suuf. bien sûr. doomu suuf. il a defi lu bon problème waaw oui. ah wax la ko démb imam wax la ko démb. c'est Eva. am na ñaar ñoo xam ne ñoo bokk benn baay. bëggante. ah oui gis nañ ko gis nañ ko école de. non dafa école dafa am mënuma wax lépp gis nañ ko école. ñaari mag yoo xam ne seen papa. papa benn papa bi. benn papa la ñu ah oui oui oui. gis nañu góor bu polygame. takk ñeenteel doomam. ci ñam. te xamul ne doomam la. xamul ne doomam dem na bërëb sàmbam. defam fa lu bon. bañ loolu daw. yàlla rattrapé ko. mais sëñ sëñ benn sëñ benn boo dugalee luñ fi macha allah luñ fi théâtre da nga bëgg ne am na. Eva waaw xam nga nag ma wax benn wax bu xaw a reetaanlu ou bien mhm. pour man la reetaanlu. Mhm. j'encourage euh, tous ces comédiens que nous voyons. Mhm. Euh, devant la télé ci téléfilm yi y a d'autres comédiens. yoo xam ne kenn fayu leen xaalis seen filmu bopp la ñu nekkee comédien. di foo ak nit di foo ak sentiment wu nit yi. ñooñu ñooñu mais ñi ca télé bi. Mhm. dañuy jàngale dañuy yeete mais am na yeneen boo xam ne comédien la te fayeekuwul xaalis la muy fayeeku mooy le mal bi muy def nit yi di faux ak sentiment wu nit yi di faux ak la société kooku beneen xeetu comédien la Eva